asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah, di santati borom bi rek alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin eh, sant yàlla googu nag boo gisee ma di ko fedd li eh, dañoo bëgg ci jataay bi ak waxtaan wi ndax ah, dama gëm ni ab jàngalekat ku rafet xol la ndax képp kuy jàngale am nga yéene ca ña ngay jàngal ñu ñu xam yaakaar naa ni képp kuy jàngale rek boo sañoon ña ngay jàngal xam te bu ñu xamee itam da ciy topp kon mooy jëfe kon bu nu yàlla wërsëgalee ñu toog ak ñoo xamante ne bii mas nañu jaar suñu loxo donte liñ leen jàngal sa xëy na bariwul ñoom ñu di ko tiitaroo kon rawatina ñun kon nag sant nañu yàlla ci loolu subhaanahu wa taala ba dafa mel ni buñ fi jóge woon tey itam kon xaraf yi jàngale kon niirul ndax am na ñu mën a jël relève bi ba jottali ko foo xamante ne ñun suñu euh, kàddu eggu fa wala suñu xam-xam eggu fa kon ñu ngi sant yàlla ci loolu di leen ñaanal yàlla guddal seen fan ndax am ngeen njariñ ci xeet wi ndax la yonent bi waxoon rek al ulama warasul anbiya yéen fa représenté tey yonent yi ndax lam yu warisoo dinaaran wala dirhaman wa innama warasoo ilman yonent yi bañ nañ nañu sax bu ñu masaan faatu kenn du leen donn yonent yàlla Muhammad kenn miraasu ko li ñu ko xanaa mooy xam-xam kon xam-xam boobu ñu fi bàyyi nag bu fekkente ne yéen a koy continuer di ko doxal kon dañuy sant yàlla rek di ñaanal gudd fan bu ànd ak wér li ngeen wax ci waxtu nag kenn mënu wax lu ko ëpp waaw sëñ Tuubaa waxoon na ni waa raqabul asiyaay lil amwaati radun ilal xayaati baadal mawti wax nga ko léegi nit kii bu faatoo li mu gën a bëgg ak ku mën a doon mooy dellusiwaat ci àdduna dundaat fi tuuti pour mën a amaat aw yiw wala par mën a moytandiku li koy naat yóbbu mbëggal ëllëg kon nag loolu ko ko xam war ngay profiter ci waxtu li ngay wax ci góorgóorlu maa ngi fàttaliku ren bi ma bi ma sànnee jamono bu noppi war a watu ki ma doon wat ab étudiant la mu ngi jàngee ci université Umul Qura bi ci Makka bi ma waxtaan ak moom ndekete yàlla def na ña ko doon jàngal sax xam xamante muy Abdou Ndiaye bu Mboro moom mu ngi may wat di fayeku diir yàlla ci bopp bu nekk waaye mu mujj moo fayeku riyal ndax xamee googu pour wane ni kii dafay góorlu jàng na mu ngi ci université di jàng waaye mu ngi profité ci aj gi itam pour liggéey pour bañ a tànk sànq waxtoom waaw loolu yëpp ay ay ay leçon la yoo xamante ne bi nit ki da ci war a bàyyi xel xam ni foo toll rek war na am loo mën a def loo xamante ne la jëriñ ci àdduna wala mu jëriñ ci àllaaxira ndax lépp loo xamante ne bi nit ki mu ngi ciy yëngu rek da ko war a ne dafa war a nekk lu koy jëriñ warula ëllëg da koy rëccu waaw maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee boobu maa ngi jidda benn waaye boobu faatu nekkoon fii nekkoon fecckat bu mag léegi nag ñu teg ko ci télévision bi di ko ko tàggee di ko di ko tàggee xam nga nit ci nekk li ñu la xamee rek loolu ci lañ tàggee bu doon jàngkat alxuraan tam dañu ci teg mu jàng alxuraan ñu teg ko muy fecc ñu tàggee ko benn waaye di kaas nag naan lu tax ma ni ko waaw lii lañ ko xamee parce que buñ ko fiñ ko tegaloon leneen tam diñu naan dañu naan lii contradiction lay doon mais comme fecc la manoon ba xam ko ràññi ko ci rek bu dee fecc lañ koy tegal kon nag nekk ku nekk ne góorgóorlu ba bu ëllëgee itam li nga li nga wane woon ne ko ñu di ko feeñal mu nekk loo xam te ne bii lu jàll lu mën a représenter la kon nag lu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala gudd fan ànd ak wér ak xam-xam bu yokk ak barke ak sutura ak teraanga ngeen baal ñaax asalaamaaleykum. léegi incha allah ngir dabaatal waxtu wi rek xam naa dañuy jiima dem. directement si euh, intervention yi bu ko defee am nañ fi ñett ñoo xamante ne bëgg nañ intervenir euh, comme waxtu yi dañuy dab ñu leen di ñaan rek incha allah ñu tënku si comme si waxtu yi itam leen doon waxtaane kon ku si nekk jox nañ la trois minutes. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Oustaz Hassan ahsanta ahsanallahu ilayk euh, yal na yàlla fay. rafetal nga yàlla yàlla rafetal jëme ci yow li ñu dégg yàlla nañ ko jariñoo damay commencé rek fi nga commencé ci taarix bi nga xam ni mooy histoire du jami te loolu da nga koo dëppaleeg maanaam jariñoo sa waxtu xëy na nag yàlla moo def barke wakama te yàlla tamit mooy tànn ci génération bu ne lam cay tànn bu ñu xoolee ñi doon jàngandoo fii ci école arab ci génération boobu nga xam ni ñoo fi nekkoon bu xoolee ñi nga xam ni moom nga wax ni ñoo bëggoon a dundal seen waxtu ba tax ñu former jam yi gii yàlla dogal na yii ñoom ñoo ko fi taxawe yàlla dogal na ñoo nekk ci jàkka yi yàlla dogal na ñoo fi ràññeeku kon macha allah allahuma la adur kon loolu dafa feeñ ci dëgg-dëgg dundal sa waxtu ndax bari nañoo ñoo xam ni ñu ngi doon jàngandoo ñu fi nekkoon waaye bokkuñu woon ci mbootaay gi pour jariñoo seen waxtu moo tax daanaka baado min al arab kenn déggatu leen donc kon ñiy jàng nañu bàyyi xel bu baax ci waxtu surtout élève damay wax ni toujours dama koy xol da ngay jangal nit wala nga mak ko lol waye li olaf nan garab ci kaw lay fekkante muy jarigno waxtom rek di ñew di ñew ba ñew romb la yow ba raw la ta ci sa kanam la juddo ci la yaroo waye dafa dundal waxtam amana lu upp yow lo xamni dundale dundalee sa waxtu bi li ci gëna yéme mooy li nga ci wax xam nga dundu doomu aadama man toujours dama koy natt ci wàllu portable yi crédit yi yenn saa yi dangay woote rek ñu la votre crédit n'est pas suffisant na xaw ma waaye nga ni mooy nekk ma ne awma crédit wala sa compte bi jeex na fekkee ñuy def orange money nga làmb doo fekk dara dundu doomu aadama noonu la mel da ngay dem ba ci yàgg bëgg dund malaaka mi ne la votre crédit kon loolu lu jar a bàyyi xel la nañu crédit bi ñu am nan ko jariñoo bu fekkee da ngay nay ci crédit bi di ko bañ a woote da ngay jékki-jékki rek ñun la crédit bi dagg nañ ko fi mu waroon a primé na xaw ma nu koy waxati exprimé na léegi nag sa waxtu wi la yàlla may nga di ko sakkanal te sakkanal bi mooy nga di ko def ci lu la du jariñ da ngay jékki-jékki ñoo la sa waaw donc kon vraiment thème bi am na solo surtout ndaw ñi parce que lii sànq suñu temps instant bi dafa bari kon nañu fexe ba góor góorgóorlu dundal li nga xam ne moom mooy waxtu wi ci li nga xam ne mooy li ñu jariñ balaa ëllëg rëcc di ñu dal te rëcc foofa wax na ko du jariñ waaw li mu wax léegi rek sa sëñ bi wax ko gis nga toujours dama koy wax mooy wa argabul asiya yi bi imam Papa Ndiaye wax léegi ci sëñ Touba lil amwaati raddun ilal xayaati raddun ilal إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة لتعملوا صالحا تنفعهم إن غفلوا ngeen baal ma Moustapha Seck moo fi sori moom moom loolu waaye li am solo mooy ndaw ñi te ba léegi ay ndaw lañu nañu góorgóor rek yokk gën a jariñu waxtu yi kon ñu jariñu àdduna jariñu àllaaxira ndax al waxtu huwa alxayaatu wasalaamaaleykum wa rahmatullah shukran ay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi rafetlu waxtaanu al oustaz Xasan fa jazakumullah xeyran man damay ñëw rekk ci benn tomb te mooy al afat alxaatira lil waxt mooy gaaf yi nga xam ne nii moom la waxtu am ci jamono e, te bi ci jiitu moom mooy at taswiif ñu bari li yàq seen waxtu tey mooy bëtal ay mbir maanaam li nga war a def tey nga ne naa bàyyi ba suba walla naa bàyyi ba ngoon loolu bokk na ci li yonent bi wax ne jundun min jund min junuudi iblis maanaam li nga war a def si bésu tey bii nga def ko njëkk banaan bés di ñëw parce que tey bésu alxemes lañu nekk waaye bésu alxemes bi ñu nekk nii beneen bés a ngi ñëw ñu tudde ko alxemes waaye alxemes bi ñu nekk nii bu demee dootul ñëwati ila yawmil qiyaamati loolu moom la abdullah ibnu mas'ud wax xaw ma xasanul basri ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunaadi munaadin yabna aadam ana yawmun jadidun ala amalika shahid fajtahid minni fa inni ida madaytu la audu ila yawmi alqiyama kon bés bi nga nekk nga dundal ko te bàyyi di bëtal beneen bi ci topp moom moo di li ñuy tudde xatlatul waxt mooy rey temps baat la boo xam ne slogan la boo xam ne xale yi léegi loo wax ñu ne dañuy rey seen temps te kii gën a metti ci àddina nag mooy kii rey lu yàlla na ma dundal gis nga kii rey temps moo gën a sonn ñépp waaye yow mi nga xam ne nii sa temps jot euh, doyul yow li nga soxlaa ci bés bi sax doo ko man waaye kii di rey temps moom dina fi dem géej jóge géej ñëwaat dem feneen ñëwaat lu nekk dina ci dugg temps bi mu bëgg a rey temps boobu dafay dund moo tax loolu yi tamit nañ ci bàyyi xel beneen bi bi si ëpp solo moom mooy sabbu zamaan bari na xale yoo xam ne ni tey dañu découragé ci jamono bu ñu waxee ñu ne jamono neexatul di ayibal jamono wala man fi mu toll dëkk bi dafa dëgër dëkk bi dina dëgër parce que bu ñëpp melee ni yow dëkk bi day gën dëgër beneen bi tamit ngay ŋàññ jamono naan dañu ma liggéey parce que liggéeyoo képp ku liggéeyiwul damay wax ne xale yi nekk ci kër yi liggéey leen dana yomb parce que du liggéey ku dul liggéeyi nag lu ñu def ci kër gi yaakaar dëgg lu ñu fi ndox mu ñu fi teg aakaar naan kon dëgg bu boobaa liggéey la dana yomb kon ku bañ ku la liggéey da ngay liggéey xale yi nañu bàyyi di ayibal jamono laata subbu dëhr fa ana dëhru kenn du ayibal jamono waaye doomu aadam dafay def yitte kon loolu nañ ko bàyyi xel lii benn boroom xam-xam wax ne ñeent yi kenn ku si nekk nañ ko bàyyi xel ut waxtu woo xam ne nii si ngay déeyante sa boroom kon déconnecté wu ak nit ñi léeg-léeg pour connecté ak sa boroom loolu farata piir la waaye bés bu nekk rek yaa ngi si ligne bi wax dëgg yàlla yow xaw ma kañ a ngay connecté wu sa diggante sa boroom انفصلوا للمخلوقين لتتصلوا بالخالق سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله مبكي yi ñu ngi sant yàlla mi دي fekkeloo الامام حسن سك imam Xasan Seck conférencier bi ci thème bi ni mu ko abordé mooy thème central bi mbokk yi jël ni al islaam diinu thaqafa wal ibada l'islam religion de culte et de culture ci biir temps la ne jaamu yàlla gi ñuy def yépp dañ koy localiser ci waxtu ak place kon am na solo bu baax thème bi moo njëkk a xidma thème centralu conférence bi li ñuy bàyyiloo xel rek li ñu doon wax xëy na mag ñi ñu bari rëcc nañ ci lenn li ci bañu perdre seen temps mais nañ bàyyi xel suñu njaboot nañ leen investiral seen temps ku la ëpp lu muy exploité temps wam moo lay gën a jariñu bu nekkee mag Oustaz Ibrahima Ndiaye junj na ko sànq euh, waxtu wi jot na ñu yemale ko foofu yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp salaamaaleykum wa rahmatullah